Pastef réew mi ñu noonu ñëpp saisir nañ leen même le président de la République ak le ministre Cheikh Omar Anne depuis le début yéen journalistes yi aujourd'hui vous êtes en mesure nekk fu ñu toog pour wax jafe-jafe étudiants yi parce que tellement on a assez fait de conférences de presse de points de presse et de marches de manifestations. maintenant li fi jot a jib ñun ñëpp yëg nañ ko xam nañ ko et le problème en est soo leen defoon tey. dugg ci biir ñi am problème mooy étudiants yi ak bachelier non orienté yi doo leen fi gis doomu ministre doo leen fi gis doomu Cheikh Omar Anne doo leen fi gis doomu directeur de cabinet ce qui veut dire que ñu fi nekk ñi ñii ñëpp ñun ni ñuy woowee doom baadoolo yi et ils sont prêts à tout pour sacrifier notre avenir loolu front bi du ci du ci d' accord tey du ci d' ëllëg pour wax li ni ñi ngi caaxaane avenir u yi mooy que ni ISEP bu jam ñaajo bii soo demee amul yónnee nañ leen ay mail que ñoom du ñu mën a reprendre le premier septembre ndax lan fosse bi nga xamante ne moom la ñu waroon def biir ISEP maanaam fosse soo duggee ci toilette bi mu mën a dem ci fosse bi fosse amu fa ñu ne leen yéen mënoo leen ñëw toog toute une journée te doo leen utiliser douche yi vu que fosse amu fa yéen doo leen mën a reprendre le premier loolu tappale la ñàkk wekk étudiant nu weesu loolu oriente ay étudiants lu toll ci quatre cent étudiants yu am nag seen bac brève de de d'une manière brève brièvement ñu am ko seen bac parce que ñoom ku ñuy orienté foofu doo como génnoo deuxième tour te soo génnee premier tour tu es sorti avec une mention ñu yóbbu leen foofu ba pare alors que ISEP bu jam ñaajo dara pareewu fa sànq wax ko ci installation yi nekk ci privé bi ñoom ñi ngi naan réouverture le premier septembre mais ñii premier septembre taxul ñu jàngi parce que bor bu ñu yoroon privé bi la fayeguñ leen ko ba léegi seen i bourse ñu ngi si topp ba léegi donc loolu tamit c'est à signaler étudiant bachelier non orienté yi le président de la république avait pris une décision conseil des ministres bii passé euh, wax Cheikh Omar Anne à que mu orienter tous les bacheliers tey mi ngi commencé di def xaaj ak seen ci biir bacheliers yi di am ñu muy tànn am ñu muy léese loolu ñun duñ ko nangu nit mënul jàng ba am bagam avec toutes les sacrifices yu mu euh, tous les sacrifices yu mu jot a def nga ñëw naan kan euh, ñii ni ñuy oriente ñii kenn du leen orienté et en plus au delà de ça mi ngi leen bëgg a retard loo maanaam di. am ay lenteur yu muy def à ce que ñoom ñu xaaraale ñi nga xamante ne ñoo war a def bac 2019 pour ñu bokk benn promotion mais kii ku mu yàpp ndax moom bëgg na doomam mu toog une année yoo xamante ne deful dara tey ñi nga xamante ne daaw lañu am bac ñu bëgg a bokk promotion ñi war a am bac ren mais nous dans quel pays dans un pays où les fils de politiciens les fils des dirigeants sont plus respectés que les fils des doomu baadoola ce que nous ne pouvons pas accepter maintenant discours yi pare nañ ci tey je pense que su ma juumul mooy doon conférence de presse bu mujj vendredi bii gannaaw suba dinañ wàcc ci mbedd mi nous tenons nag l'opinion nationale internationale nous tenons les parents d'élèves à témoin nous tenons nos autres camarades étudiants yi nekk ci yeneen université yi muy université Assane euh, Assane Seck bu Ziguinchor muy Cheikh Anta Diop muy Gaston Berger muy Thiès muy feneen ak feneen nous tenons le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur à témoin ne leen nag ñun day yuuxu nañu depuis des mois ñi ngi yuuxu ñi ngi jooy autorité yi dégg nañu xam nañu suñuy problème mais nanguwuñ ñoo déglu waaye nag moom moment bu ñuy wax ni interdit nañu rassemblement ndax mbas bee ngi yokk interdit nañ waaye lii lu ko gën a doon virus ndax est-ce que virus corona dafa gën a dangereux virus bi nga xamante ne y a l'avenir de plus de soixante mille étudiants qui est en jeu c'est la question que je pose maintenant su fekkee dañoo bëgg su sama camarade wax na ko sànq su dañoo bëgg beneen Fallou Sène beneen Balla Gaye beneen Bassirou Faye parce que peut-être ñoom seeni doom kenn du leen rey ci yii donc nañ ñu ko wax nañ ñu ko wax te ñun pare nañu pour loolu vendredi bii di ñëw nous donnons rendez-vous à tous les étudiants de ces différentes organisations non seulement mais aussi à tous les étudiants des différentes universités yu bëgg a porter ñoom ñoom tamit bëgg solidaire à notre combat citoyen et noble ne leen vendredi bii di ñëw nañ ñëpp ñu daje fi nga xamante ne mooy siège Sonatel bi plus précisément siège UVS Université Sénégal pour porter le combat de toutes ces organisations xam dugal nañu lettre d'information bi depuis le lundi passé tey suñu yenn camarades yi moo tax gisoo leen leen fi ñu ngi gendarmerie bu euh, Foire di def li ñuy wax enquête de routine donc enquête ak ñàkk enquête yëgal nañu autorité bi lenn mooy tere sitting boobu am muy que ñu wooñu fii ak suba ne seen i jafe-jafe kaay am nañ ci solution loolu su amul di ngeen gis ci mbedd mi su fekkee nag pare nañ pour mate pour rayaat yeneen étudiants pour jàpp ñu yóbbu ci kaso yi ñu xam ne ñun lañ dem ci kaso yi non seulement pour suñu avenir waaye aussi pour l' avenir des des générations qui vont venir parce que bachelier non orienté suñ ko bàyyee kon nañ arrêté bac bi te xam ne ci biir bac ren bi dina am ay bachelier yu ñu dul orienté kon nañ arrêté arrêté bac bi parce que ci biir bac bi euh, dina am ay bachelier yu ñuy orienté ISEP bu jam ñaaju alors que c' université boo xamante ne travaux yi pareegul des travaux inachevés nañu arrêté bac bi parce que suñu moytu dinañu yóbbuwaat études bacheliers yi dans le privé te duñu fay privé yi loolu moo nekkoon lu fi gën a fës ñu bëggoon ko yëgal askanu Sénégal waaye aussi également au delà de vendredi dinañ dem buntu ministère la semaine prochaine dinañ fa dem toog fa toogaanu ñaxtu te duñu fa jóge tant que Cheikh Omar Anne mii nga xamante ne moom lañ dénk enseignement supérieur génn wax ci suñu avenir su nekkoon doomam la na ko bu yàgg su nekkoon sëtam la réglé na ko bu yàgg su nekkoon mbokkam la réglé na ko bu yàgg te ñun suñu salaire lañ koy fay du Macky Sall moo koy fay du APR moo koy fay budget national du Sénégal à travers nos impôts nos taxes nos ressources naturelles ci ñuy tekki di ko fay salaire am di fay salaire am ñu muy ñu muy liggéeyandool ñëpp donc il a droit à nous respecter war nañoo respecter maintenant nous réclamons de manière direct de manière très objective c'est-à-dire très objective du sa démission parce que ne peut pas causer avec un président un ministre boo xamante ne il n'a pas sens de sens de à l'écoute le front national pour le progrès des étudiants du Sénégal composé euh, par les bach les bacheliers non orientés qui sont au nombre de plus de 1848 bacheliers composé par les étudiants de l'ISEP de Diamniadio composé par les plus de 40 000 étudiants euh, du privé composé par mille par plus de 1125 étudiants de l'UVS déclarés non éligibles ñooñu kenn mënu leen jox seen machine composée par les étudiants victimes d'une escroquerie de Afrique Canada nous tous nous réclamons le départ de euh, Cheikh Omar mi nga xamante ne depuis le début de l'année depuis plus de neuf mois ñu ngi koy bind ñu ngi yuuxu ñu ngi wax il n'a pas sens de l'écoute euh, sens de l'écoute et il préfère rester dans donc loolu moom suñu combat la te dinañ ko porter di jox rendez-vous askanu Sénégal dinañ wax ne nag bu ñu kenn jëm baaraamu tuuma ñu ñu waroon saisir yëpp saisir nañ leen ñu ñu waroon waxal yëpp wax waxal nañ leen donc ñu génnee ci mbedd mi lépp lu ci am comme conséquence Macky Sall ak ministre am nañu endossé li nga xamante ne mooy responsabilité yi